أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñoo ngi ba tey ci sunu téere kitaabu tawxid di tàmbale tey bunt bi nga xam ne moom mooy baabun min ashirki an yastagiisa bi gayri llahi aw yad'u gayrahu bunt bi dafa topp ci bunt bi tàmbali woon mooy buntëb dafa bokk ci bokkaale nit di xettali ko kudul yàlla wala muy ñaan wala muy woo kudul yàlla kon xettaliku ci lu dul yàlla wala kudul yàlla loolu bokkaale la wala ñaan kudul yàlla wala lu dul yàlla loolu bokkaale la mbokk yi bu ñëwee ci min ahdafi dars lan mooy jubluwaayu jullit bi mu war a jël dars bi mooy an yubayina al muslim ann addu'a laa yakunu illa lillahi waxdahu dars bi dina jàngal jullit dina ko xamal ne ñaan kenn du ko def ku dul yàlla kenn du ko def ci lu dul yàlla ñaareel mooy an yastanbita al muslim an allaha huwa al mustahiqu lil ibadati wa shukri dina bokk ci jullit bi li muy jële tey ci dars bi mooy naka nit ki dana xam ballulu ne yàlla subhanahu wa taala moom kenn moom kot moo yoyoo jaamu moo yoyoo sant ñetteel mooy an yastantija al muslim dalaala man yad'u gayrullahi julli bi dina ci jëlee mu leeral ko ne képp kuy woo ku dul yàlla yow da ngaa sànk kon sunu dars tey jubluwaay bi ñetti mbir la mooy nit ki ràññee xam ne ñaan kenn du ko def ci ku dul yàlla beneen bi mooy jullit bi mu leer ko ne jaamu ak cant yàllaa ko moom kenn moomu ko kudul yàlla ñetteel bi mooy jullit bi mu mën a ràññee ne képp ku mu gis muy woo kudul yàlla wala muy xettaliku ci moom wala mu koy ñaan mu xam ne kooku dafa sànku bu ñëwee ci nassi bi aaya alquran bu ñu sunu borom subhanahu wa taala di nettali ci suratu namli borom bi subhanahu wa taala nee na baada audu billahi min alshaytani arrajim bismillahi arrahmani arrahim borom bi nee na amman yujibu almutarra ida daahu wa yakshifu suu wa yajcalakum xulafai alard a ilahum maa allah qalilan ma tadkurun ma tadakkarun sunu borom subhanahu wa taala wax na ci suratu namli aya 62 mu ne amman yujibul muttarra iza daahu ana kan mooy wuyu aji lore aji loru bu woo bu loroo ba woote ana kan moo koy wuyu iza daahu bu woowee yàlla mu ne wa yaksifu suu yàlla wuññi lor wala jafe-jafe yu mu amoon mu ne wa yajaalukum xulafa al ard mu def leen kuut laay ci kaw suuf moom yàlla borom bi ne a ilahun ma allah ndax dafa am yàlla bu ñuy woo ak a jaamu boole koog yàlla a ilahun ma allah ndax dafa am beneen yàlla bu ñuy dendaleeg yàlla tontu bi mooy déedéet moo tax mu ne qalilan ma tazakkaru néew na lu ngeen di fàttaliku kon ci aaya bi borom bi nee na am man ana kan manil lezi ana kan koo xam ne yujibu mooy wuyu mooy tontu almudutarra ku loru almakruub allazi massahu dur ki nga xam ne lor moo ko attaqué ndeysaan benn waaye ngi doon tukki jóge sam jëm yaman yor gëléemam def ci ay bagage yu baree baree bari bari ba mu ñëwee ba ci digg àll bi ca yoon ba mu tàmmoon di jaar am ku mu dajeel waa ji ne ko sama waay foo jëm mu ne ko dëkku sàngam laa jëm mu ne lu tax nga jël yoon bi bëgg a jaar fii mu ne ko fii moo gën a gaaw fi laa doon jaar mu ne ko déedéet man fa laa jëm waaye ma gis nga yoon bii moo gën a gaaw waaye daal di koy dévier daal di koy jaaral ci beneen yoon boo xam ne la mu ko layee mooy yoon booboo gën a gaaw waa ji dafa ne dëgg la mu daal di ànd ak waa ji ñuy dem ñu dem lu soree sori yàgg trop ci yoon wi waa ji yeggul daanaka waa ji la mu doon dox benn dox ne ñaaram mu ne ko waa yow yow de da nga ne moon yoon bi moo gën a gaaw mu ne ko waaw fii moo gën a gaaw léegi ñu yegg ñu doxaat ba ci kanam waa ji commencé am sikki sàkk ko waa yow da nga ne fii moo gën a gaaw mu ne ko waaw moo gën a gaaw kay yu jox ba caag rek ñu gis ay yaxu gëléem ak ay yaxu fas waa ji ne ko waa yow fi nga ma jaaral nag mu ne ko bala ma lay bàyyi gëléem gi nga war mel ni sa yax yi nga gis ñu dox ba caag gis ay yaxu nit mu ne ko bala ma lay bàyyi yaxu nit yii nga gis sa yax yi mel ne yax yooyu mu ne ko loo ma nar mu ne ko dama lay rey mu ne ko dang ma nax jaar loo ma beneen yoon mu ne ko nii laa def sa morom yu baree bari mu ne ko jëlal gëléem gi ak alal ji ci nekk nga bàyyi ma dem mu ne ko déedéet loolu moom sama alal la maa ko moom gëléem géeg li ci nekk maay boroom léegi yow sa bakkan bi la ñuy la ñuy négocier mu ne ko borom njaboot laa bul ma rey ragalal yàlla ci man mu ne ko bu ma la bàyyee da ngay dem wax ko nit ñi ñoo fekk ma fii rey ma loolu moo tax foog ma rey la ndax mu la bàyyee damay feeñ mu ne ko kon may ma ma julli ñaari raak mu ne ko amul benn problème waa ji daal di jàpp daal di julli ñaari raak daal di sujjóot daal di jàng daal di taf tawassulu ila allah jottali ko ci yàlla subhanahu wa taala ne yaa waduud yaa waduud yaa waduud yaa zil arshi al majid yaa faalan lima yurid waa ji daal di jàng ñaan gi ba mu jeex tàkk ba ci mujjantalu ñaan gi mu ne yaa muxiisu axis nii yaa muxiisu axis nii yaa muxiisu axis nii bu mu waxee loolu ci ñaan gi ndeke malaaka yi ci kaw malaul aala malaaka yëpp sujjóot nañ ci kanamu yàlla malaaka yëpp ñu ngay ñaan yàlla kenn ku nekk ma ngay sàkku ci yàlla yàlla jox ko ndigal ba mu sëwe ji waa ji bi waa ji siggee ci sujootam daal di taaye sëlmal waa ji daal di koy yeew ba mu dëgër ba génne jaaseem rek mu dégg benn baat ne bu ko rey mu ne wax kan mooy wax fii mu gestu ndeyjoor gestu càmmoñ gisul ki muy waxal mu jubluwaat ci waa ji ba yëkkati jaasi ji mu dégg benn baat baat bi gën a jege ne bu ko rey mu siggi yem ci benn waay bu taxaw waa ji daal di koy dóor biti loxo ci ginnaaw loxo la ko waa ji dóor mu dali fale daal di daanu moo jaasi ji daal di faatu waa ji jël jaasi yi ñoo fekk waa ji doon julli borom bagage yi mu dagg buum yi mu ne ko yow yaay kan mu ne ko man benn malaaka laa ci malaayika yàlla yi subhanahu wa taala bi nga ñaanee sa ñaan gi malaaka yi ci kaw asamaan yëpp dañoo sujjóot ci kanamu yàlla malaaka bu nekk di ñaan yàlla jox ma ndigal ma dem sëve ji waa ji mu ne waaye man la yàlla jox ndigal moo tax première bu ko rey bi damaa tiit ba maa ngi woon malaul aala bi ma yàlla ne yow la rek foofu laa foofu laa xaacoo ne waa ji bu ko rey mu ne deuxième bi maa ngi ci asamaanu premier bi troisième bu ko rey bi laa taxaw fii yàlla nee na am man yujibul mututarra iza daahu ana kan mooy loru ba woo yàlla te yàlla du ko wuyu kon ndeke aaya bi loo ciy njëkk a dégg mooy ndeke ku loru ku am jafe-jafe yàlla rek nga war a woo war a woo kenn ku dul yàlla nga gis tey ni mu amee ku ni mu amee wuut ni mu amee juuyoo ñàkk dëppoo ci jullit yi tey bu ñu amee jafe-jafe ci la ñuy sori yàlla ci la ñuy daw di làqatu ci leneen lu dul yàlla ndeke yow bi nga amee jafe-jafe li la war mooy nga làqatu ci sa boroom ndax wa iza saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu daawata daa iza daani yàlla ku ko woo mu wuyu subhanahu wa taala moo tax mu ne am man yujibu almudtarra iza daahu ana kan mooy wuyu aji loru moo xam ci biir géej nga nekk moo xam ci jaww ji nga nekk moo xam ci oto nga nekk moo xam ci loo mën a nekk saa yoo demee ba tiit ba jàq yëgal am na buur bu fi nekk bu la mën a sauver bu tudd allah subhanahu wa taala benn waaye da doon weddi borom bi subhanahu wa taala naan yàlla amul benn borom xam-xam di ko laaj bëgg a delloo si xelam bëgg koo jubal bëgg koo jàngal xamal ko tawxiid borom xam-xam bi ne ko ndax mas ngaa tukki mu ne ko waaw waaw mu ne ko bi nga tukkee lan nga waroon mu ne ko gaal mu ne ko nga dugg biir géej mu ne waaw mu ne bi nga demee ba biir géej nan la vague yi def mu ne vague yu mel ne ay montagne moo yëkkati gaal gi mu ànd ak lëndëm ak dënu mu ne ñi ci gaal gi yépp tiit ku nekk di woo la nga yaakaar ne dina la sëbe mu ne ko loolooy yàlla loolooy yàlla benn waaye dafa ànd ak jabaram ci biir géej ñu dem sorti biñ demee ba ci diggi géej gaal gi waaj a lab ñépp tiit jabar gi waa ji nag moom ni ko yàlla bindee mooy ku dal la dafa teey dafa dal problème bu amee moom du wax day toog rek benn place du yëngatu jabar ji seetlu waa ji ci biir gaal gi ñépp a ngi ut pexe pour rëcc waaye waa ji moom mu ngi toog rek benn place jabar yi ñëw poñe ko di ko rëkk ci dënn bi di yuux naan ko yow xanaa da ngaa dof est-ce que yow normal nga yow ñépp a ngi jéem a mucc yow nga toog benn place rek waa ji daal di génne paaka ci poosam daal di teg ci baatu ndaw si ndaw si daal di reetaan waa ji daal di poser question ndaw si ne ko looy ree mu ne ko damaa xam ne paaka bii nga génne doo ma jam mu ne ko lu tax mu ne parce que yow da nga ma bëgg ba ñemewoo maa dóor bëggoo maa wax lu la naqari nga génne paaka kon xam nga ne paaka bi da ngay sóob rek mu ne waaw lu tax yow nga am ci man kóolute ba yéen xam ne du ma la jam mu ne parce que yow da nga ma bëgg mu ne ko waaw man tamit am na koo xam ne dama koo bëgg ba xam naa ne gaal gi ma toog du ko labal mu ne ko kooku mooy kan mu ne ko mooy yàlla ni nga amee ci man kóolute ba xam ne du ma la lor du ma la gaañ noonu laa wóoloo yàlla ba xam ne gaal gi ma toog du ma lor du ma indil jafe-jafe moo tax ma toog benn place tranquille mu ne xoolal lu toll ne paaka laa teg sa baat nga am kóolute man tamit am naa kóolute ci ki ma bëgg yow mën nga bëgg man yàlla laa bëgg kon baam ak ki ma bëgg kon ndeke aaya bi daf ñuy jàngal ne am na fi koo xam ne moo tudd sa boroom mooy allah saa yoo tiitee saa yoo amee jafe-jafe saa yoo nekkee ci tolof-tolof soo ko woowee mu wuyu la yemul ci loolu wuyu la waaye nee na wa yaksifu suu da lay dindil jafe-jafe yi nga am wa yaj'al lakum xulafaa al ard waaye da leen def kuutlaay ci kaw suuf xulafaa al ard lay def kuutlaay ginnaaw ba mu fi jëlee lu bon li yow la fiy teg nga jiite suuf si moo tax mu lay laaj ne la a ilahun ma allah ndax am na ci kaw suuf ku ñu war a dendaleeg yàlla tontu bi mooy lan mooy laa ilaha illa allah moo tax mu ne qalilan ma tadakkaru néew na lu ngeen di fàttaliku yéen jaamu yàlla yi aye ba mu ngi ci suratu naml aye 62 ñëw na ci tabaraani bi isnaadihi annahu kaana fi zamani nabi sallallahu alayhi wa sallam munafiq yu'zi almuslimin fa qaala ba'duhum qumu bina nastaghisu bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min hadha almunafiq فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله الإمام الطبراني نينا كي تيرم بي nee na ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na benn waay boo xam ne naafiq la woon danaan lor julit yi benn bis sahaaba yi mu doon lor daan ne ñëw leen ñu dem xettaliku ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amaana mu xettali ñu ci naafiq bi bi ñëw na yonent bi waa jii de def ñuy lor guddi ak bëccëg dañoo bëgg nga xettali ñu ci moom lan la leen yonent bi tontu innahu la yustaghaasu bi man kenn du xettaliku ci man wa innama yustaghaasu billah ci yàlla la ñuy xettalikoo mbokk yi ci tomb bi dañuy gis lu doy waar mooy sahaaba yi loolu ñu def ci yonent bi dagan na waaye yonent bi da leen koo tere lu tax pour lan pour aar tawxiid pour aar tawxiid moo tax yonent bi tëj bunt boobu tere leen ko ndax yonent bi xam na yàllaa ko yónni jamono bu mel nii xamoon na dana ñëw nit ñi danañ bàyyi yàlla di xettaliku ci ay bant ak ay weñ ak wala semaine bi boo xoolee foo tourné ci dëkk bi gis ñu takk ay sagar yu xonq ak yu weex boo nee lu xew ñu ne doomu jinne dafa réer dama dem benn kër dëj di jaale ji ma ñëw fekk dëj bi kër gi yëpp takk sagar yi xonk ma ne leen waaw lu xew ñu ne doomu jinne leen man leen yéen kon yéen ak doomu jinne yéen yéen a nuroo ba jinne di leen jaawalee doomam est-ce que nit ak jinne ñoo nuroo doomu jinne kay su réeree ana doomu nit ndax doomu xar dina réer nga takk weñ nga dem di ko wër di ko jaawaleeg sa doom ndax doomu muus dana réer nga koy jaawaleeg doomu nit kon ne lan mooy ana ndeyu doomu jinnee réer ñuy ñuy takk sagar yi beneen bi mooy kan moo leen wax doomu jinne moo réer ku leen ko wax jinne bi moo taxaw ci rajo bi ne leen sama doom dafa réer dama koy déclaré ku ma fekk ci mbedd mi boo takkul sagar gis nga yooyu seytaane yi ñoo koy def ci bopp nit ñi xërëmkat yeeg seen kaang fóore yooyu seen buxaaba yi ñoo leen di dugal ci xërëm yooyu moo tax ñu ciy dugg loolu xërëm la jullit du takk sagar du takk laar du takk gàllaaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi sahaaba yi ñëwee ci moom wax ko loolu ne ko am na benn naafiq munaafiq lan mooy munaafiq kan mooy naafiq al munaafiq huwa alladi yuzhiru al islam wa yubtinu al kufra wal muraadu bihi wal muraadu bihi huna abdallahi bun ubay bun salul nee na naafiq mooy koo xam ne foo ko fekk day feeñal lislaam di dem wane ne moom ab jullit la yàllaay boroomam muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy royukaayam waaye nag dafa nëbb ci biir ak kéefir ci xolam daf cee nëbb kéefir kufr nee na liñ ci namm ci hadis bi mooy benn waaye bu tudd abdullahi bun ubay bun salul moom la ci yonent bi bugg a wax kon bu ñëwee ci anasiru dars mooy élément yi ëmb leçon bi danañ fekk laa yustaghaasu illa billah kenn du xettaliku ci kudul yàlla xettaliku mooy lan xettaliku mooy lan mooy ut wàllu ut ku la sauvé tey bu bu gaal doon lab nga ut ku lay musal ci lab googu yàlla rek nga war a woo loolu mooy xettaliku mooy ut wallu ut ku la musal lool nag dafa am yenn moment yoo xam ne place bi ngay xettaliku yàlla rek rek subhanahu wa taala moo fa sës moo fa mën dara mel ne avion buy daanu oto buy accidenté gaal guy lab yii yàlla rek moo ko ci mën dara waaye kenn mënu ci dara waaye da ngay gis ay nit yu takk gàllaaj naan insha allah gàllaaj yi boo ko takkee doo dee ci accident leen saa nga gis ko ku ñeme yàlla koo xam ne danaan lii may jaay ku ko takk doo dee ci accident wala nga dégg ku ne kuy accidenté nga woo diw jàmm rek ngay am loolu bokkaale la seytaane moo lay dugal ci pexe yooyu ba nga fàtte sa borom subhanahu wa taala foo war a woo yàlla nga woo fa nit bokkaale nga waaw place yàlla boo fa tegee nit rek bokkaale nga moo tax ñu ne laa yustaghaasu illa billah mu ne yuqiimu llahu subhanahu wa taala alxujjatu ala almushrikin fi butlaani ittixaasihim ashafa min dunihi sunu borom subhanahu wa taala mu ngi tëj mu ngi taxawal lay wu leer naññ ci kaw bokkaale yàlla yi ci yàq jàpp gi ñu jàpp ay nit yoo xam ne dañ leen di ràmm di leen ñaan xettaliku bàyyi yàlla bima qad alimu wa aqarru bihi ci loo xam ne ñoom dañ koo saxalal ba pare xam ko xam ne lii yàllaa ko mën ñu bàyyi yàlla di woo keneen wala leneen yooyu mooy ñaata ijabatullahi lahum iza daawhu fi haali shidda xam nañ ne yàlla ku ko woo ci jamono tartar mu wuyu la ñu bàyyi yàlla di woo keneen nit ñi ñoo la gën a xam ne ci jamono tartar lan la yàlla wax léegi ci aaya bi ana kan mooy wuyu ku loru kan mooy wuyu ku loru ku dul yàlla yàlla nee na man maay wuyu ñëpp ku ma woo ma wuyu la kon nit ñi xam nañ ne ci jamono lor ci jamono tartar suñu woowee yàlla yàlla wuyu leen waaye da ngay gis ñu bàyyi yàlla di woo leneen te leer na leen ne yàlla mu ngi fi ku ko woo mu wuyu la moo ko wax wa iza saalaka ibaadi anni mu ne fa inni qarib kon lan mooy ndey ñu bàyyi yàlla di woo keneen te yàlla nee na soo ma woowee ma wuyu la mooy dalaa doyul moo tax nga woo ki la doy loolu nag boo ko defee bokkaale nga te ku bokkaale bu dee dee dem safara ñaareel mooy kashfuhu assuu annazil bihim ndeysaan sànq dama toog fii rek sama téléphone sonné ma jël benn xale bu jigéen mu ne ma man de maa ngi université mais dama bëgg a ñibbi ndax dañ ne tey université avion daf fay daanu wala suba le 18 mu ne kon dama tiit ma ma bëgg a ñibbi lu ci lislaam wax xam nga réew moo xam ne dem nañ ba bu xaaba yi bu leen waxee dara ñu gëm ko bu leen seytaane yi feeñee feeñalee dara ñu gëm ko réew moomu jullit yi fa nekk war nañu seetaan seen bopp te gis nga sunu borom subhaanahu wa taala ku mën a nattu la gis nga tey bu yàlla defee loolu mu nekk dëgg subhaanahu wa taala la ilaha illallah kon di nga gis ñu ne waxoon nañ ko gaa yi di ko weddi mi ngi nii nag fekk wa ma hum bi daarina bihi min ahad illa bi iznillah dara du xew lu dul lu yàlla bëgg lu yàlla namm ñoom mënuñu lor dara ci li xew lu dul yàlla li mu namm lu yàlla namm mooy am lu yàlla nammul du am innama amruhu ida arada shay an yaqulu lahu kun fayakun dafa war a leer ci jullit ñi lu am ci loxo yàlla la bi iznillah du loxo kenn du ma sàmba du ma demba lépp ci loxo yàlla la subhanahu wa taala kon jullit ñi war nañoo gëm ne natt yi wàcc ci taw ci tàngaay ci tremblement de terre ci lu mu mën a doon ci ay xew-xewu jamono avion yuy daanu bato yuy lab bato la joolaa lu tax bi muy lab bu xaaba yi gisuñu ko lu tax téyewuñ ko catastrophe bi gën a garaaw ci àddina bi ci Sénégal mooy bato la joolaa waaw léegi bi muy am fu bu xaaba yi nekkoon fu borom xaw fa fuufa yi nekkoon fu borom jinne yi nekkoon fu maaman yi nekkoon lu tax gisuñu ko woon mooy catastrophe boo xamante ne bi mu amee ñëpp a tiit ñëpp la bett lu tax gisuñu ko est-ce que subhanahu wa taala sunu borom mooy programme yàlla rek moo xam alaa yaalamu man xalaq wa huwa latiful xabir yàlla rek moo xam kenn xamul ku dul yàlla yàlla wax na ko ci Qur'an wallahu yaalamu wa antum yàlla nee na maa xam xamu leen yàlla xam kenn xamul kon borom bi subhanahu wa taala nee na man maay dindi bépp musiba buy wàcc man yàlla maa koy dindi kenn mënu ko dindi ku dul man man yàlla maa ko mën a dindi kenn mënu ko dindi kon doomu aadama yi naka la ñu mën a xamee yàlla mooy dindi ay nattu yàlla mooy teggi tiis yàlla mooy faj feebar doomu aadama yi bàyyi ko fi dem ci keneen te xam nañ ne lii yàllaa ko mën ñetteel mooy jaalahum xulafaa al ard jiilan baada jiil mbokk yi génération yi am ci kaw suuf ñii dem ñii ñëw ñii dem ñii ñëw ñii dem ñii ñëw kan moo ko def ku ko mënoon def yow doo dem ci génération bu mujj bi rek ngay toog di programmer sa bopp léeg-léeg nga dégg ñu ne diw mooy borom jamono te dee na nga moom jamono ba pare bàyyi ko fi dee kon ku mënoon programmer sa bopp génération par génération ci ban génération ngay bokk ndax di nga bokk génération bu màgget bi bi feebar bi bu amul xaalis bi bu ñàkk bi bu rafle bi bu tumaranke bi kon ci génération bi gën a boobu rek ngay dugal sa bopp waaye gis nga doomu aadama day judd léegi nekk liir suñu borom subhanahu wa taala din ko nettali ginnaaw nekk liir mu nekk xale ginnaaw nekk xale mu nekk xale bu góor nekk waxambaane mu jékki-jékki nekk jeune toll ci digg dooleem day dem dem dem ba ci yàgg buy dox foog mu ut ñetti tànk foog mu jàppandu bu yàggee muy jaxase guddeeg bëccëg añ day jot mu naan ndékkee guma ñu indil ko reer mu naan kañ la ñuy ndékki waaw bu yàggee sax dootu fi nekkati bu yàggee day nekk rabu àll nit kooku day nekk rab ku ko nuyu dalay jàpp di la màtt wala mu lay dóor ndax nekkatul nit xoola fu muy mujj wala mu tëdd benn tëraay boo xamante ne ni mu nekkee woon liir ñu koy sang di ko kuus noonu lay mujjee su boobaa dañ koy tëj ci néeg ku ñëw ñu ne day nelaw day nelaw day nelaw day nelaw mu ngi tane mu ngi tane day nelaw xoola kenn bëggatu la gis sama benn xarit daf ma woo ndeysaan barki démb téléphone nee na dafa amoon benn xaritam bu nekkoon Sénégal nekk gentleman am xaalis yor ay million yor oto bu rafet takk jabar ju rafet lu ko neex def bu ñu ko nee julli mu saaga ku ko wax bu ñu ko nee woor mu saaga ku ko wax benn bis waa ji ne ko yow dee ngaa ragal yàlla di julli bàyyi nii nga mel xanaa xamoo ne un jour viendra mën ngaa dee sa jabar ji keneen beneen góor takk ko sa oto bi keneen di ko dawal sa kër gi keneen dëkk ci mu ne kon ma génn ci bàmmeel yi nangam ñooñu ñëpp seen ndey daal di saaga ci bàmmeel yi laay génn kon waaye def nangam noonu ñëpp daal di tëddaat mu feebar mu feebar ñu faj ko Sénégal ba kenn mënu ci dara ñu teg ko ci tapis roulant dugal ko ci avion yóbbu France sama xarit bi nee na keroog bi mu wàccee ci avion bi nekk ci tapis roulant nee na moom musul jooy ku dee papam dee na jooyul mbokkam yi dee na ñu bëri gis nee na bi mu séenee waa ji dafa jooy ndax waa ji ni mu meloon waa ji fan la mujj France ñu bënn put bi di ko dugalal lu mu lekk ba lekk bi mënatul dem ñu bënn biir bi di ko dugalal lu mu lekk ba loolu mënatul dem docteur yi daal di rocc yëpp teg daal ne kii mënatuñ ci dara waa ji di souffrir ba dee nekk nii dee kon nit ñi nañu xam ne yàlla rek kay dëgg loolu yàlla neen la wallahi yàlla mooy dëgg leneen lépp puukare àdduna rek la di daw topp ci ginnaaw àdduna fàtte yàlla bisa ngi ñëw dinañ la wàcce salal dugal la ci morgue futti la sang la saañ lépp loo xam ne pax la sang la yeew ba mu dëgër gas pax ba mu xóot daal la ciy suul nu ñuy suule mbalit nit ñi ñibbisiwaat sa kër añ ndékki añ reer dara du xew dara du xew gis nga fi mu nekk nii bu ñu nee nit dee na est-ce que nit ñi duñu ndékki danañ ndékki wala duñu ndékki danañ añ wala duñu añ danañ reer wala duñu reer waaw montre bi nga takkoon sax dootul taxaw yow du taxaw dañ koy tekki rek waaye montre bi de montre paa bi la woon mais paa bi góona quoi takk montre bi tax mais sa montre bi rafet na montre bi waaye paa bi de bi mu décédé sax lañ ma ko jox mais keneen moo koy jël montre bi sax keneen a koy jël ndeysaan am na benn xale bu jigéen yaayam dafa génn àdduna ñu sang meer bi ba pare ba war ko jullee génn ko ci biti xale bu jigéen bi daan ne sama yaay dafa takkoon ba ñu or de ba ñu or ñu daal di koy delloo ci biir ngaa simmi waat ko ba mu set daal di ubbi gémmiñ gi woo tëgg bi mu dindi ba ñu or bi ñu la xasaat ko lépp dañ koy dindi wala ba ñu or bi sax dañ koy dindi ndax moomatuloo ko dañ koy yekki allahu akbar kon li war mooy jullit ñi delloo xel yàlla delloo seen xel ci yàlla subhanahu wa taala xam ne yàlla rek mooy dëgg lu dul yàlla caaxaan la ixwatal iman fa ida kanat alihatuhum laa tafalu cheyan min hadihi l umuur fa kayfa yacbuduunaha ma allah su fekkee yi ñu gëm ci ay xërëm ci ay buxaaba ci bokkaale du def dara yàlla rek kay def kon naka lañ koy jaamoo di ko dendaleeg yàlla kii def moo tax borom bi subhanahu wa taala posé ñu benn question ci aaya bi mu ne a ilahun ma allah ndax kon am na ku ñu war a dendaleeg yàlla ci kaw suuf ah su fekkee yàlla rek ka mën ku dul yàlla rek bisa ngi ñëw ñu ne la bàmmee la ma ngi nii ku dul yàlla bisa ma ngi ñëw ñu ne la bàmmee la ma ngi nii kon dinañ dendale kenn ak yàlla kon war nañ ñàkk jom war nañu réer war nañu fuuy wala war nañu alku bay jël mbindeef wala dara di ko dendaleeg sunu borom subhanahu wa taala moo tax yàlla nañu a ilahun ma allah ndax am na lu ñu war a dendaleeg yàlla tontu bi mooy déedéet wallahi amul kon mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala mu ne fama aqallu natazakkaru haula almushrikin fi ma yurshiduhum ila alhaq wa tariqi almustaqim ak a néew doomu aadama yi lu ñuy fàttaliku sunu borom subhanahu wa taala ak a néew bokkaalekat yi lu ñuy xalaat jëmale ko ci sunu borom subhanahu wa taala ci lu leen di jubal ci dëgg waaye di leen orienté ci siraatal mustaqim mooy yoon bu baax bi yoonu dëgg nit ñi dañoo tëj seeni xel tey fatt seeni nopp du ñu jéem a xalaat ci xel yi leen yàlla may ubbi seen nopp jéem cee dëgg dëgg gi ngay gis doomu adama boo xam ne dafa takk lam wala mu takk sagar gu xonq wala béjjën wala pettaaw wala mu takk bopp picc wala bopp xar béjjën te bopp bi nga takk fan la jóge picc bi nga takk bopp bi picc mi du doon dund mu dee nga jël bopp bi takk waaw loo xam ne mënul aar boppam ba dafa dee boo ko takkee yow lan la lay jëriñ béjjën bii nga takk béjjën bi fan la jóge ci xar mi lu tax musalul xar mi musalul xar mi est-ce que yow mun na laa musal yooyu doomu adama yi duñ ci xalaat ñu ne doomu jinne réer na nga jël sagar bu xonq wala sagar bu weex daal di takk ñu ne def la ciy musal sagar bi ngay xotti sagar bi sagar bi protégé wul boppam da nga ko jàpp xotti takk ba mu dëgër sa loxo bi ba pare te boo ko fa bàyyee mu ñuul kukku tilim salte moom mënul musal boppam est-ce que mën na laa musal yooyu noonu doomu aadama yi war a xalaat xam ne yàlla rek subhaanahu wa taala moo ko mën yàlla rek moo ko jayoo mais doomu aadama yi dañoo tëj buntu yooyu du ñu xalaat xoola kuy sangoo deret xoola kuy naan sàngara xoola kuy naan saw ah benn xale bu jigéen moo ma nettali loo xam ne dafa toog ma toog mu ne dama amoon benn gisaanekat bu ma doon seetal gisaanekat bi dafa ne ma demal nga jënd ay pettaaw marché mu dem ma dem ba ca marché ba jënd ay pettaaw ma jëndaale soow ma ñëw mu jël pettaaw yi def ko ci benn bool sotti ci soow bi daal di dema dugal ko ci duus bi nga tëj ko ma dugal ko ci duus bi tëj ko 30 minutes mu ne ma indi ma indi ko mu daal di dindi pettaaw yi daal di yëngal soow mi naan xoolal soow mu ñuy teg ci duus nit di ko naan tey ñun ñi toog fii ku la yekkaloon reer dugal ko ci duus bi ba nga ñëw asalaamaaleykum reer bi pare na mu ne waaw anamu nga ne mu ngi nii ci duus bi ma tëj nga ni ko lan mu ne la mu ngi ci duus bi nga ni ko duus ngay wax rek mu ubbi buntu duus bi génne palaatu ginaar bi teg ci kilo mburu teg da ngay lekk wala doo lekk lu tax doo lekk lu tax du ngeen lekk mais xam ngeen lu tax waajooju naan sow mi parce que seytaane ci duus la dëkk seytaane yi lay neexal moo tax moo tax booy dugg ci duus ñu ne la na nga ne allahumma inni a'udhu bika min al xubusi wal xabaais parce que foofu lañ dëkk moo tax du hasard waa ji jël sow mi dugg ko ci duus bi après naan ko parce que ñoom seytaane lañ àndal ñooñu ñooy julli duñ jàpp ñooñu ñooy jël alquran di ko dugal ci biir duus ñooñu ñooy jël jigéen li muy gisee baax di ko binde alquran moo tax ñu alku moo tax ñu nekk ay yéeféer yu ñuul kukk mais bu ñu toogee dañ naan ay allahu akbar ay laa ilaha illa allah ay barke laa ilaha illa allah muhammad rasul ngay gëm yooyu nga defe ne ay jullit lañ fekk ay yéeféer yu ñuul kukk lañ ndax li ñuy wax ak li ñuy wane ci biti du benn képp koo gis muy gisaane wala muy seetal nit ñi yéeféer bu bu ñuul kukk la képp ku gëm ne waajooju du yéeféer yow yéeféer nga mbokk yi ximaayatu nabii sallallahu alayhi wa sallam li tawxid yonent bi dafa aar tawxid moo tax mu tëj bunt bi bi gaa yi ñëwee laaj ko nee na kaana abdullahi bun ubay bun salul raasul munafiqin fi ahdi nabii sallallahu alayhi wa sallam kaana yuzi lmuminin abdullahi bun ubay bun salul mooy njiitu naafiq yi ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da daan lor jullit ñi bu baax a baax ci ay kàddu ak ay jëfam benn bis fa qaala baaduhum izhabu bina ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nastagiisu bihi lenn benn bis way gëm yàlla yi ne nañ dem ci yonent bi suñ demee ñu wax ko waa ji lim ñuy def ñu xettaliku ci moom li yasudda anna sarra hada almunafiq bi qatlin aw darbin aw tahdid maanaam sahaaba yi lii ñu dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko wax naafiq bi li mu leen di def maanaam yonent bi mën na ci dara ndax ñett lañ proposé yonent bi benn aw tahdid yonent bi woo waa ji ne ko hé soo bàyyiwul ñii ma boole laag léegi sama saxaaba yi ñu rey ko yonent bi mën na loo mooy tahdid aw darb wala yonent bi joxe ndigal ñu dóor ko yonent bi mën na loolu aw qatl wala ñu rey ko maa ñett yëpp yonent bi mën na ko waaye xoolal saxaaba yi bi ñu ñëwee wax ko yonent bi lan la leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tontu mu ne lii wal istigaasatu fi haadha alxadis jaiz jaiza li annahu sallallahu alayhi wa sallam xayyun qaadirun bi qadrin ala kasfi aziyata zalika almunafiq nee na yonent bi saa sallam lii sahaaba yi di sàkku ci moom mën na ci dara ndax mu ngi dund mën na jël groupe bu sahaaba ne leen jëflante leen ak waa ji rey leen ko wala dóor leen ko wala tiital leen ko su boobaa waa ji ne leen bàyyi waaye xoolal yonent bi lii saxaaba yi sàkku ci moom mën na ci dara waaye dafa tëj bunt bi lan la leen wax naha an hazihi siga yonent bi dafa tere li saxaaba yi wax daf ko tere baat boobu fa qaala mu ne innahu laa yustagaasu bi kenn du xettaliku ci man xam nga lu tax mu tere leen ndax dañoo bu ñëwoon ne ko dimbali ñu ci waa ji rek dana ci wax waaye dañoo ñëw ne yonent bi xettali ñu ci waa ji baat bu ñuy utiliser moo tax yonent bi tere leen ko baat bi ñu indi moom la ñu war te indi ndax xettaliku ci yàlla lañ koy def kenn du ko def ci mbindeef mbindeef da ngay ñëw ut ci moom ndimbal waa dimbali ma ci lii wala dimbali ma ci kii waaye xettaliku yàllaa ko moom moo tax mu ne laa yustaxaasu bi wa innama yustaxaasu billah kenn du xettaliku ci man ci yàlla la ñuy xettalikoo lu tax yonent bi loolu mu ne ximaayatan li tawxid yonent bi da ko def ngir aar tawxid tawxid dañ koy aar ni ñuy aare sunu kër yi di ko aare sunu bopp di ko aare sunu alal noonu la ñuy aare sunu tawxiid tey nag nit ñi xamuñu tawxiid ba koy aar moo tax lu ñëw rek yàq da ngay gis ku nekk ci jàkka ji léegi léegi julli ba pare wala ci biir julli gi sax muy bokkaale gis naa waa joo xam ne gisoon naa waa joo xam ne bu ñuy julli li xaam ba pare allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah hiya ala salah hiya ala alfalah qad qaamati salaat qad qaamati salaat allahu akbar allahu akbar la ilaha illa nga dégg mu ne bismillah fas yéene julli ci barke diw ci darajay diw ci ci ci tudd ay tur yu bare bare bare bare bari wala loolu te nee na mu ngi julli waaw noonu la koy defee de day bàyyi ba waxtu jumaa la ko doon def jumaa mu bàyyi ba ñëpp ilimaan ne war a wax allahu akbar mu ne bismillah maa ngi fas yéene julli ci barke diw ci darajay diw di tudd tur yi mais mbokk yi gis ngeen waa yooyu doon def loolu maa ngi leen di giñal ci yàlla ci biir jàkka lañ nekk wallahi bi mu deewee dafa nëpp ci biir néegam ba koñ bi yëpp ubale nëpp ci biir néegam ba koñ bi yëpp ubale kenn xamul li xasaw lan la ñu dem wooyu sapeur yi sapeur yi ñëw dajji buntu kër gi dajj kër gi ñu fekk ko ci néeg bi mu dee ba sax yi di ko di ko di ba biir bi toj noonu la waa ji faatoo ci ci saag lañ ko def ci ay mbuusu perméable lañ ko lañ ko def daal di koy daw yóbbu ko toog nañ une semaine service d'hygiène di pompe koñ koñ bi di pompe kër gi noonu la waa ji dee loolu moo tax lu bon baaxul yàlla du moroomu kenn yàlla boroom la dañ ko war a jaamu dañ ko war a màggal moo tax mu laaj ñu ne a ilahun ma allah ndax am na ku ñu war a dendaleeg yàlla ku ñàkk jom rek mooy dendale yàlla ak keneen ixwaan yi yonent bi tëj na buntu boobu ximaayatan li tawxid ndax aar tawxid wa saddan li baabi shirki ndax tëj buntu bokkaale bokkaale dafa rëy moo tax yonent bi bëggul sahaaba yi ubbi buntu boobu biñ ñëwee ci moom di xettaliku ci moom mu ne leen déedéet innama la yustagaasu bi wa innama yustagaasu billah kenn du sàkku ci man xettaliku ci yàlla la ñuy xettaliku mu ne yonent bi def na loolu wa adaban wa tawaaduan li rabbihi def na loolu ngir yar moom yonent bi ngir suufe suufelu ci kanamu boroomam allahu akbar ngir mu won sahaaba yi man munumaa xettali kenn yàlla rek sama boroom subhanahu wa taala mooy xettali waate gis nga wala yonent bi pourtant bi saaba yi ñu waxee loolu mënoon na rek joxe ndigal ne reyal leen ma waa ji waaye baat bi ñu indi moom la d'accordul moo tax mu tere leen baat bi ne leen wa innama yustaghaasu billah ci yàlla la ñuy xettaliku fa ida kaana haada fi ma yaqdiru alayhi te lii lii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax lii sahaaba yi indi ci li yonent bi mën la fi xayaatihi ci dundam fa kayfa kon yajuuzu an yastagaasu bihi baada wafaatihi su fekkee bi muy dund la ko tere kon bu faatoo naka lay yella bu fekkee bi muy dund la ko tere kon bu faatoo fii nag nit ñi dañuy xettaliku ci ñu dund di xettaliku ci ñu dee da ngay dégg sax ñu ne o mo njiiɗon ina leliiɗo ko waawno nde o wuuri ko haa jooni omo waawi ɗum nde o maayi nde ñi may waxal xam nañ fi may waxee kii ngeen gis mu tëdd fii li mu mënoon ci ba muy dund ba léegi nii bi mu deewee mën na ko du dëgg de wallaay mënu ko bi muy dund moo doon sang boppam bi mu dee dañ koo sang wala moo sang boppam dañ ko sang moo doon solal boppam yére bii mu dee liñ ko def dañ koo solal yére moo doon yóbbu boppam tey bi mu dee ñu ko yóbbu ci bàmmeel yi di ko suuli dañ ko yenu wala yenuwuñ ko kon kay du dëgg xam nañ ne li mu wax du dëgg nañ ko jox mburoog café ñu seen ndax dina ndékki kon kay mënatu ko waaye bëgg a wax ne li mu doon mën bi muy dund ba léegi mën na ko jabar jaa ngi nii nañ indi jabar ji ñu boole koog moom ci benn néeg est-ce que mën na ko mënatu ci dara wallahi keneen mooy ñëw takk jabar ji am ak moom ay doomi doomi doomi doom kon nag dañu delloo si xel yi ñu xam ne yàlla mooy yàlla ku dul yàlla rek jaam nga fa kullu ma siwa allahu fa huwa aalamun ku dul yàlla rek mbindeef nga jaam nga ak koo mën a doon hatta yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaam la in kullu man fi samawati wal ard illa aati rahmani abda abd jaam yàlla moo ko wax yàlla nee na ñépp ku mu mën a doon ci kaw asamaan ak ci suuf jaam nga ci kanamu allahu subhanahu wa taala jibril li muy màgg-màgg ba yàlla di ko tagg naan zi quwatin inda zil arsh makinin mutain thamma amin laa yamnauhu innama huwa abd jaam la mbokk yi idan fa tadullu zalika ala anna du'aa'u al-amwaat wal-ghaa'ibiin aw al-ahyaa fi ma la yaqdiruuna alayhi aw al-istighaasatu bihim shirkun akbar yunaafi at-tawhiid mbokk yi dafa jot ñu xam ne woo ku dee tiim ci bàmmeel di ñaan ku dee wala ngay ñaan mbindeef koo gisul di xettaliku ci moom moo xam sax waajaa ngi dund ngay xettaliku ci moom ci loo xam ne moom mënu ci dara yàlla moo mën loolu loolu dafa bokk ci bokkaale yi gën a rëy yoo xamante ne dafay dàq tawxiid tawxiid daf ko tere kon demee na depuis tey bu yeboo ñu xam ne xettaliku ci ku dee wala kuy dund ci lu mu mënul loo xam ne yàlla rek ko mën loolu bokkaale la buñ jàngee dara bokkaale la nag li ñuy jëriñ mooy ñu jéem koo bàyyi bu fekkoon ne ñu ngi koy def waaye buñ déggee wax ji di jaay dëgër bopp di jaay wowle di jaay nangam ak nangam di dëkkal wax ji fa mu dëkkul di ko foog fa mu ko foogewul yëgal ne kii wax daf lay fàttali day fàttali boppam di la fàttali kese waxi yàlla lay firi ak waxi yonente sallallahu alayhi wa sallam boo déggee nga jël sa bopp la boo déggee nga sànni sa bopp nga ko def in aradtu illa al islaaha ma stataatu wa ma tawfiqi illa billah assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu in kaana fihi sual bu amee kuy laaj